millions quatre cent vingt six mille trois cent quarante trois quarante quatre dem nga xam ne seen woote ñu nangu ni mooy li ñu waral séddale capital yi nga xam ni baax i baax quatre millions trois cent trois mille

bu ko 15,67% candidat Madické Kenya, am ci 65002 bu ñu ko muy candidat de am na ci 178533 bu ñu ko xaymaa muy 4,7% ak Jokalante euh, bi euh, pour sànni seen bopp. bëri nañu comme ni mu ko waxee Sénégal yi bëri fii nag bitim réew dem nañ am sànq wote la muy taux de participation boo xam ne bu dee amit bëriwul. maa ngi leen sant di leen gërëm di leen jégalu di leen masawu ci xaar bi ndax yàgg na wax ji ñu ngi koy saraat merci beaucoup. Ah, merci.